imaamul mahdiyu di balluwaay bi ñu war a ballalloo sharia boo xam ni qiyaas njaru ko ijtihaad njaru ko waaye dafay jëmma joo xam ni dafay gàgganta ko ci wax barom bi mu ne ulamaa yi ub yi jamono dikk kon nag fóor yi jamono fa ñu gage woon yépp imaamul mahdi yu mooy jëmm ji leen yàlla tere lañu war a gàggantaku ci moom ma wax ne nag am solo jëmm ji dafay dor yi rekk dàkkantal ak ndomba yi ñu ko takkal ndax arab lu am solo lu ne daf koy jox tur yu bari كسرة المسميات تدل على أن مسمى سامي عرب لو جسم يحكو دكن تلتر يباري رك خمال نلول أمنا صلو لول إمام المهدي نك من نيو جيل جرم بني تور كي توري نيو كي دكن تلي دانا نيو كتو ديال إمام الموعود نجيت ميال يال ديك جامونا ولا نجيت مي يال خير مودي المهدي المنتظر mooy ki yàlla jinnil boppam mu war a jubal jamono kon loolay différence bi njiit yi mu fi fekk ñu jiitu ko fekk ñi ñëw gannaawam yépp amaana dañuy jublal dañuy jubal waaye danañu àgg foo xam ne bu ñu gagee mën nañu gàggante ko ci qiyaas muy analogie walla ci ijtihaad muy jurisprudence waaye seen limaam mu nag loola du source de référence danañu ko tudde itam xalifatullahi fil ard ci utu yàlla ci kaw suuf danañu ko tudde ak ruuxul munqiza ruu ji war a xettali àddina wala ruu ji war a xettali jaam yàlla yi danañu ko tudde itam imaamul abdal góori yàlla yi utante ci jamono mooy ki yàlla tànn mu war leen jiite danañu ko tudde imaamul mujaddidin ñi ñëw di yeesal mbirum diine mooy kilifa gi len waran jité ca yeesal ga ñu yeesal danañu ko tudde sayyidu zaman danañu ko tudde sangu jamono dafa mel ni na seyna limaamu boobu la tanal bopam mu ngay wax fa min al ma'lum wa sayyidul karim fa min al mukhtar wa sayyidul alamin وسيد هذا الزمن ياتي ويخالف العلماء فكفروا به وهو يدعو بالدين والهدى الى الله ومن تبع وصدقه يهتدي ويهلك من كفر به كون دا فا ملني تورو ولا تانل بوبام نده اوبيكو نتي خبران ني نيت مي ньо خام دي سانغ بو تيت واخ جي كي كاي ييكي جيمي كو تي يين mooy ci yàlla tànnal boppam muy sangu mbindeef yi dellu waxan ni sangu jamono ñëw na waaye ba mu ñëwee indi na loo xam ne utale nekk ak for yi jamono waaye ëppul nag diine ju dara njarul ak jub goo xam ne boo ci tegoo mu tettal la yàlla mu ne nag ku ko topp waxatu lëngëm ndax ay julli la fi fekk waaye mu ne ku ci dëgg ga mu andi dëggal ka mu ne di nga waaye ku ko wet di alku ah, mhm. leen salaam la ilaha illa la la ilaha illa di nay joorin yu kayar kulla wax leen diina lislaam am nay joorin yu kayar kulla ay waay yàlla moo leen tànn may leen wóolu leen jox leen salaam la ilaha illa la ilaha illa boppu téeméeri at mooy ñi koy wooteel ci parte loolay la si wax leen mooy ñi kay wooteel ci par téeméeri at loolay la si waay bopp téeméeri at yu ne lay am yi laaya mal xiyaam la ilaha illa la ilaha illa la fa tabarakallah foofu rek laa soxloon nga ne boppi téeméeri at yu ne lay am eh, fa tabarakallah is nga li ma tënk ci arab rek laa bëgg a firi eh, bu ñu waxee ne mahdi yu leen la fiy utsi war nañu laaj itam tarixa ngir lan la fiy xañ addina ji mat na waaye mu jóge ci fenn jaar ci kenn ñëwal ñenn diine lislaam ci mawlana tabaraka wa taala la jóge jaar ci yonent bi ñëwal ummatul islaam waaw bu leen genn dëgg la nag gu nekkoon benn dëgg waaye yonent bi jóge fi ñaari téeméeri at mu bëgg a nekk téeméeri dëkk palamtu rekk a fa nekk bu kenn way palamtu warul ku am njàccar lu jiitu xanaa bëgga daanu kan réere ak nen sëriñ sa topp tànk ba sa bay libas ñëw ne may boroom kuy xeñtu leer ba janta fenk xamal na leer ya wër na la libaas ne fa yonnen sumi woon dàllam wa boroom moo ñëwaat sol ba toppaat ca tànkam ba waaye yooyu rek la ñuy firi nag dugg ci waxtaan wi bëgg ñu teewlu ko misaalu diine lislaam dafa mel ni benn bâtiment la nag bu àggee ci rab dafay àjjewoo ñu réfectionné ko bâtiment bi ñu réfectionné nak dañuy dellu ci ingénieur architecture bu nga xamantene moko moo mané ingénieur architecte ba rëddoon bâtiment bi buñ ko bëggé réfectionné dañuy wat ci mom mu tétal len tek len ci yoon wala ci misal mu gëna lèr ma ne ordinateur bu dee ni système bi dafa yi informaticien yu ndaw yépp dañuy seppi seen loxo xaar ingénieur bu mag bi bu ñëwee mu réinstallé dal di réinstallé système bi informaticien yu ndaw yi di soor a bokk kon lan la bëgg indi ci loolu yépp moy ne diine l'islam yonent bi daf ñu fi bàyyi sharia bu ben sharia dul folli bayil ñu fi itam téré bu ben téré dul folli ndax sharia bu mu mujj ñëw dafay folli bi jitu won téré bu mu mujj ñëw dafay folli bi jiti won yonent bi nak bàyyi fi sharia boo xam ne benn sharia ñëwul folli bàyyi fi itam alxuraan mu di téere bu benn téere fol folliwul kon bu ñu demee ba sharia boobu ajowoo ñu yeesal ko su booba nag ma ne boroom alxuraan mooy ñëw la mu rëddoon ndax moo labbali woon yoon wi te ka labbali yoonu yoonam moo maati bu leen bañ cee ba màngeeti wax ngeen ko sànq ci woy wu am solo góor gi Mamadou Lay Ndir woy ko yëkki leen ko ci lu gàtt ci lu gàtt bi ngeen yëkkoon ci suba àll yu yee koy yàq di la Eh, waame moo di bàyyi laay cece ba moon la nuy naa sumbu suy du mande cece ba moo di bàyyi laay sant leen jëlilo limaamu mooy rasoolo dem te fen ñu doylo yonen ba moo di di xaaraat te am sa ngëm lu du dul jeex bàyyi leen di xaaraan te am sa dem lu dul jeex romb géej nga cub teen ca géej gu neex di bàyyi laay sant leen li maamu mooy rasooloo jant ñu doyloo yonem ba moo di bàyyi laay waame moo di te ceeba moo di waame moo te te ceeba moom la nuy naan sëmba suy du te ceeba moo te bàyyi laay sente li maamu mooy rasuloo jant feeñ ñu doyloo yonem te bee di bàyyi laay góor ji yal nañu ko yàlla fayal amiin amiin xam naa ne daal euh, libaas ñang la ko daan déey xam naa ne moo koy déy de dafay na ba boppam rek yàlla na ko yàlla dolli ubbee gis nga boo bëggee dégg wayam danga dellu ci masalikul jinaan foofa sëñ Tuuba di wax ni fa tallu qad yabdu amaama alwabli walfadli lilwabilaali talli fala tanaasa nasa xadiisin xiina nazmi tasdari ummatika almatari ndeysaan xam nga lu yonent bi waxon daf ne ummati kal matari la yudra awwaluhu khayra am akhiruhu mu ne ne lal xet wi ma fi bàyyi ne na ñaar la mu ne xamuñu nak ndax ngëneel li da fay top ñi jitu wala da fay top ñi mujje sëñ touba dal di tontu mu ne taw day ñaara ci daje waame ak samba suuy te ku ne xam na nii waame mooy indiwaale ngëneelal taw ndax mooy jebbil gàncax gi mooy ñoral waaye ne ne sàmb ne ne mooy njëlbeenu taw kon mu dal di confirmer nii kuy jeex ngëneelal xeet wi jeex ka ci mujj xeet wi te maadi yu moo koy indiwaale nag Mamadu Laay ne waa me moo di Baay Laay moom la nuy ne eh, waa me moo di Baay Laay moom la nuy ne eh, samba suy du mande ca Ceeba moo di Baay Laay ah, sant leen Jaliilo li maamu mooy Rasuulu dem te fen ñu doy la yeneen te di Baay Laay lan la bëgg feeñal Euh, personnalité Mahdi yu personnalité la bëgg a feeñal xam nga lan mooy différence bi ci diggante kay gàggante ko ci qiyaas ak ijtihaad ak ki gàggante ko ci ndéey lu ko borom bii déey danañ ci joxe benn anecdote ci benn xissa bu amoon ci jamono Shafii ak imam Malik ak ibnu Sirin dafa am jigéen ju doon sang benn jigéen ba mu ko xaawee janook awram ndaw si it ci li ñu mën a xam ku xawoon a ubbi buntam la waaye sangkat bi tam mànduwul mu daldi jël loxo bi tappa ci payu ndaw si ne nangam tànnam wi dey def na nangam ba tey yàlla dal di fa téye loxo bi ba ñu demee ci imam Malik mu ne nit bu génnee àddina waruñu dagg benn cër ci yaramam kon loxo bi sang nañu ko dagg ndax ki doon sang bu ñu daggee loxo mi du ko tee dund niw bi yóbbaale ko ñu dem ci Shafii Shafii mu nii kii dee dee na ba pare te kii dund nag loo xam ci lay liggéeye ci lay tedd ci lay terale njabootam kon li xel nangu eh, nañu dagg payu ndaw si mu toppal loxo kii dund xam nga loola lox dafa nekk xew-xew boo xam ne mësul am ci jamono yonent bi kon ci fan lañu mëna mën dellu ci ittihad jëfëndako xel mu dom adama rafetlu waaw muy analogie ak jurisprudence waaye su xey yàlla dey ndax yàlla dana dey ñu dul yonent ibn sirin ibn sirin ñëw na len ñeen ñaar yépp seen atte mandu walla yàlla dey na ma na ngeen laaj ci doon sang lan la wax ba yàlla téye lo xam ci payu ndaw si ba ñu ñëwee laaj ko mu ne dëgg dëkk dama ko xasoon fi mu tëdd waaye bi sama kàddu rekk laata daanu la yàlla téye sama loxo mu ne kon nag dóor leen ko juróom ñett fukki yar yoon ndax jullit bu xasee moroomam dañu ko war a teg juróom-ñetti yar yoon ngir bàkkaaru xas yi man ko teggi ñu fekk ko fa mu sëgg dóor ko juróom-ñett fukki yar loxo bi dal di teggee ko dan laa bëgg andi différence bi qui ci ki analogie ak ki gàggante inspiration divine Je tax dit que du moroomu gay yi ki wax ne manalen duñu ko jende ki nga day valeur ma wax ci discours ñu ne imaamullahi dafay nekk njiit moo xam ne dafay indi lu mat lu matal waaye itam dafay nekk delluwaay boo xam ni ku tibbe ci moom dinga nga daj lu la suur ba doo xaaraani waaye itam géej la goo xam ni ku naan ci moom di nga màndi ba doo yenu sandaa di rootaani dégg ngeen li ma wax ku delu ci mom di nga fa daj lu le sour ba do ko fi jelu di xaram waye itam di nga fa nan lo xamni do doo say ndab di mom la wax sank ci suba sayna limam in raaytu man huwa khairun minni amra aw aksar minni nahyan fadrukuni wattabi xam ne du am ndax ku mii na nàmp ci meenu Seydina Limaamu meew mu tem-temi nga fay nàmpe boo ko fa jëloo rek wenn woo sexati dafay forox ci yow moo tax mu xam ni dépense am mat na jëlam doy na mu yewi taalibeem kon kooku wute nag sëriñ bi nga xamante ne dafay wax ne sama taalibe bu amee ñaari sëriñ rek dog ci sama wirda waaye bu sa dépense doyee sa njël mat waxuma nit waaye bàyyi ma bi nga yar sax boo koy wëgg di ko xonte ci kër ji lu mu waraani rek dana dellu sewaat mu tax seen alimaamu loolu la ñuy jàngal kon nag mu des euh, loola mooy différence bi bàyyi na fi téere bu benn téere dul folli te jamono indi na nag loo xam ni mo wara firi alquran way alquran nako wara firi motam tax mu ne ulama yu tej len tere yi kon nak ñan ne won ci boram gàpparu du ñuy cuune tafsir mbey sil tafsir ablay jàll tafsir dembe yem tafsir jibril gay ah tafsir mukhtar lo tafsir njalande gay bokay lim ëpp na juróom ben fukk ñoom ñëpp ba ñu ñëwee dañoo ub seeni téere waxuma sax tafsir yi waaye ku toll na Seydina Isa di yonentab yàlla waaye ba mu ñëwee dafa gàpparu nekk taalibe Seydina Limaamu wa Isa sayaati taabian shara Ahmed waaw bismillah na ñëpp na ni ñu màggal Seydina Limaamu Laay sallallahu alayhi wa sallam imaamu Nubahaani mu ne wa isa sayaati wa isa sayaati mu ne na isa dana ñëw taabian mu dal ahmadi mu ne du fi rëdd beneen sharia bu bees waaye dafay ñëw tënku ci sharia bi nga xamante ne moom la seena Muhammad doon yusalli bihi mahdiyuna mu ne mahdiyu mu fekk si ci jamono mooy doon njiit di koy jiite kooku mooy wax wa yaxtadi mu ne garaatam yaag mayem lay mu rëy yépp fa akrim bina ma ñëw mu ne garaat ya la muy rëy yépp mu ne dafay lax daraja ja lax maxamama dal di ñëw gàpparu nekk taalibeem fa akrim bina fa akrim bina min ummatin zaata suhdadi zaata mu ne ñun xeetu muhammad teraanga bi ñu yàlla berndeele mu ne doy na teraanga ndax yàlla daf ñoo jagleel ñaari leer mm. waaw lanal taaha wabni maryama ya rawlaay wasiirul imaam rawlaay wasiirul imaam maxfiyun la ñëw da doy gaaya door lañ tubiram yax ba goola zaay seydi rawlaay ku la way am beram fa laay walaay gaaya door lañ tubiram yax ba goola zaarate سيدو ولاي كل وي أبرم فلاي ولاي هو شمس ليس له هو شمس ليس له في الزمان ما مثله يقف أنه كنز الهداية سيدو ولاي كل وي أبرم فجنته jërëjëf damay wax ni ki nga xamante ne yonent yi jiitu yépp moom la ñu bégle woon moom ba mu ñëwee ñaar rekk la ñu joxoñ mu ni ubashirukum bil mahdi xadiisu abu saïd al xudari la yonent bi mu ni yéen sama xeet mangi len di begele mahdi nee na yubaas ala ikhtilaf wa zalazil nee jamana jamono ba muy ñëw nee wute ak ak raj lo da fay bari lol ci xeta yàlla yabal ko nag mu ke fi adina ju lëndëm ngir tooñ ak bàkkaar waaye mu wara soppi xarkana mu adina dal di ko leral ndax man mune ne jëmmaangoog yenente bay wax de mu ne ñi dëkke asamaan danañu contane ci dikam gërëm waye ñi dëkk suufit danañu contane ci mom gërëm motax tax dafa am solo fa hada huwa almahdi lazi man bi zayli يأتي من ma ñëw am na solo ma ñëw am na solo macha allah euh, may leen ma développé tuuti su ma jeexalee ci tënk dinaa leen bàyyi ngeen zikkar ba doyoon xam nga waxatuma ak samay mbokk comme àddina lay waxal jàpp naa ni walla maa ngi dénk kuy wax ci cadre mbirum Seydina Limaamu bul jàpp ne sa mbokki bopp ngay waxal jàppal ne ci ngay waxal mission universelle la indi kon nag waxal waxin wu universel waaye taalibe loo wax rek daaneel na ko waaw waaye ki nga xamante ne dafay déglu dafa am benn sëriñ bu ñu tuddee sëñ Muxtaar Mbàkke manqué yi nuyu dañoo daje États-Unis ma def conférence bu pare mu ne sëñ bi dama bëgg bo nyai ñay waxal sayna limam mu nga wax ak ñom ñuy wax ni ngay waxe yalla buñ ci gis suñu bop muni lu bari ci seeni kat dañuy defé ne ñuy dingat rek leen di deglu té man ak kenen ku dul man dañu bëgg ginné ci mbiru limam ndax lu nit gatta gatta xel di nga jiw wi yalla joxon seen limam mu dal di ko tobbil mu dénk ko suuf jebbi na meññanta barke ku koy suxlu la nga koy diingat siy naa limaam mu romb na la moo tax wax bu am solo la wax euh, moo tax maa ngi koy wax sànq nañu dëgëral waxin wi ndax limaamu weesu na fu ñu koy maslaawe kuy gëm-gëm ku gëmul alku gàtta xel paasewul loolu layil sëy naa limaamu jarul wax wax bu dëgër sa gémmañ di fur ngay fëgg table ndax dafa am ñaaru a xàmme wax bu dëgër ak wax lu dëgër bokkul jàpp bu dëgër ak jàpp fu dëgër bokkul wax bu dëgër amul solo waaye wax lu dëgër moo am solo fexeel bala ngay wax nga odde ko lay wu dellu ci alquran ak sunna loolu la yàlla wax yonent bi waqul lahum qawlan baliga ne na waxal ak nit ñi nga wax ak seen conscience waaye nga indi leen dëgg goo xam ne dinga nga ko oddelay wu dëgër gis nga doomu aadam jullit ak yéefare ci yem am na lu ñuy tudde intuition humaine ñépp a ko am te koo gaaral ak dëgg bu làmmañam gànto itam intuition humaine dana wax ak moom leer la go xamne yàlla laq na ci kuy nit balil insan ala nafsihi basira walaw alqa maazira yàlla mu ne dëgg gi ma fi am mu ne boo ko jaayee ko wara a jaay ne ne intuition humaine dana ko nangu donta nak lamagn wa daf ko gàntu bon sens mu ngi noonu intuition boobu nag gis nga maada mu ngi ñu joyanti waaye li am solo leer la gu yàlla tere la ñépp fam benn waaye intellectuel la yàlla na ko yàlla yaram dama wax ak moom ci mbiru limaamu waaye ñaari fan mu ñëw mu ni amel nga ma ax li nga ma wax mënul dugg ci sama bopp waaye booba bu léegi sama conscience tranquille waaw man ko sàllam mañ dafa gàntu loo xam ne sa conscience gàntu ko ndax dëggu yàlla koo ko gaaral rek bu làmmañam gànto it conscience am dana nangu moo tax marchandise mi nañu ko jaay nu ñu ko war a jaay waaw jaay ni moo am solo gis nga wéejuru soxna sali bay siiti coow dafa daan di wax ni bu ñëpp amee seen xeeru xam mooy xeeru ban di tàllal di wane mu ne yow mi am xeeru jama mu ne bu ko génn noog ñoom ndax dañu koy jaawaleeg xeeru ban ja jëlal denc ci sa poos moo tax sëy naa limaamu kenn du ko jaay fu muy lambi waaye itam kenn du ko jaayee ci anam bu muy lambi lan la bëgg a wax wax bu dëgër amul solo waaye wax lu dëgër a am solo am na ñu naan oustaz sax buy wax dafay teeyal waxam di masla ah loolu lañu ñu seenaa limaamu sante na waaw ah, danga wax waxin wu silwiise sol lu silwise nag di wax ak nit ñi waaw takkalu silwise gis nga montre bu silwise bi sëy naa ma njoon moo ma ko takkal keroog ba ma jógee quartier général yàlla na la ko yàlla wutale takkayal joma yow ak say rakk moo tax loolu moo am solo yassiru wala tu'assiru sëy naa limaamu ni yéen ñi may waxal na ngeen nooyal waxin wi waaye bu mu dëgër yassiru wala tuassiru yolomal leen waaye bu mu dëgër yassiru wala tuassiru na yomb bu mu jafe yassiru wala tuassiru na woyof bu mu diis waaw kay kon nag loolu feuille de route la bu ñu seen alima mu ñu ngi di muqaddamam moo bu nit ñiy wax ba seen gémmañ di fur di fëggi taabal ñun xajuñu ci loolu waaw izhaba ila firawna innahu tagha fa qula law qawlan layyina mu ne ko Muusa àndal ak sarak ngeen dem ci Firaun bur bu beewul waye na ngeen wax ak mom ci kaddu yu noy gis nga yàlla ba mu yeb ay yonentam kaddu yu noy dafa am solo motax nañu yarat sunu comportement ko xamni jotali kàddu sayna limamu amo xam-xam bu ko matale na nga fexe ba sa comportement di woné sayna limam ñep xaj nañu ci sëñ Badu comportement bu rafet yar bi fi Seydina mu bàyyi yiw gi fi Seydina Limaamu bàyyi sellate gi fi Seydina Limaamu bàyyi nañu ko woon bëtu jamono su boobaa nañu xeebal lu ne waaye bu ñu xeebal sunu jikko bu ñu ñu xeebal sunu nite ndax kumpa gu ne jeexitam la ñu koy gëmee kon ñu dellu sewaat ci tem bi